man awma nattable ci moom lu ma wax ci moom loo xam ne dama naan rekk dañu ma ko wax waaye xaw ma ko ndax koo xam ne dinga dund te dinga dee sooy wax te naa gëgoo dafa goo war a wax luy dëgg ndax ña la xaman jeexaguñu kenn ku nekk alal ja am soo dee joxe ni alal saxe ci xol soo dee joxe sa alal te jox ko ki la doy suñu la ko laajee di nga xam nu mu demee Cheikh Ibra Fall li ñu ko daan jox la ca gën a bari lu ca bari daanaa ko fekke ndax dama daan xëy di fa yendu ndax sama taaw bàyyi sësal rëkk ci moom ak ci sa ci sama ndey cheikh manu Fatma sa sën rëkk ci moom ba mu weex karoot moo koy wommat di sol fo fooxee bu ànd ak forom ak dalli yëggali dalli wa ganti di murit mu nangu murit ga daawut war ca kaw eh, eh, eh, fas ba daawut war ca karoot ga da daan wommat cheikh Ibrahima ca kaw aku njabootam mooy daw lan ak fas wa ndax jàpp ca sikki mu fas wa ca buum ga nekk ca sikki mu fas wa di daw dëkk ak dëkk wax na ma ne fexe ne njaareem ba tolloog cene ba foofu yi saxaar daan taxaw te mu mujj def daar bu ndawan miskitam nday jooram wii foq tànk bi mën a tuta mag mu kan, di ko tàllal di ko sànni di di di tëbee càmmooñ bi bu de bu bu sànnee tànk bi wadd sànni ak càmmooñ bi di ko sooxaale di def ak façon ba yéeg raayum kees romb kër ma alay ji dikk ci kër Cheikh Ibra fas bi taxaw Cheikh Ibra wàcc ba laal ndox mën mënta banque tànk bi yeewu fas wi taxaw ak fas wi fii mu fi mu taxawan ndax booba tànk bi xaw naa sedd waaye nag métit bi tax na mënu koo banque te mënu koo wax nee na bàyyam Cheikh Ibra génn fekk koy taxaw ne ko xanaa dangay noppal sa waa ji nee ma ne ko dama ko doon dalal rekk de nëbb sama yitte ndax bañ mu xam ne tànk bi dafa gaañu mu ne man defe naa ne loolu rek la fi bàyyee ne ma na ko ah loolu rek bay faal moom mu fi bàyyi dama ko doon noppal ne mu dox ma gannaaw jàpp ci mbagg mi féete tànk bi bës ko ne ko fekk mu jëm gannaaw miskit mi nag taal la dellu ma làmb tànk bi man ko bank ma wa mat fas wi dem yeewi nee na loolu di def naa ko mhm. ak célébrat mhm. man mii tam mhm. am naa sama picc mu tudde jaxaay mm-hmm. sama taalu be bàyyi bu ko tuddee mm-hmm. war ne ko ci garab gu ñu wax ngéejaan ca mm-hmm. sunuy tool fu ñu wax géejaane yët mu ko njaareen ma di ko yar di ko jox ndawal ba mu toll ne seq gu mat di dàq ganaar yi ma takku buum ci tànk bi aw sagar wu di bañ mu naaw ma ñàkk ko sama nijaay tailleur Serigne Fall Cissé mm-hmm. lu ma laafiya mm-hmm. may def bu ma xëyee yeew ko mm-hmm. dem yendu ji su ma ñëwee jox ko mu lekk bu ma demee ni gis nit ñi lu ñu gën a baax de di ko jox Cheikh Ibra lu ñu dajalee ba mu am solo ñu yóbbu kër gu mag jox Sëñ Tuuba Serigne ma xëy leewu ko ak sama mbàttu ci nu laaxul caaxaanu koraay bu am ndawal boole ko dikk fekk nit ñi ram ma ram ku yaar ci sama kanam may mu ñëwee danu ba ma sës Cheikh Ibra tiim ma ca palanteer ba jàkkaarloo gaaru njaareem palanteeram mhm. bi ci njaareem daa jàkkaarloo gaar ba mbedd da cee jóge ba dugg ca biir gaar ba mhm. da ko daan ubbi tiim nuyookat yi dañu ko jox mu jàllale mhm. lenn lu ci ne am ku ko féetewoo di ko denc bu dee bu dee jur bu dee takkaay bu dee xaalis buy lu muy doon lenn lu ci ne Cheikh Ibra da ko wuta leen ku ko féete woo koo xam ne moo amee loola may gis loola xedd ma ne joxe tey joxe lu ma moom ma yëkkati ko tàllal mu yóotu ko ngëb ca tànk ya mu yëngal dongo ya mel ne ganaar gu ñu yële mu ne ma lii nu mu doon ma ne ko jaxaay am ku ne xool am ku ne jege mu ne ah te ne teg ku ne ne cel mu ne alam duñu ko dee laaj borom man a wax waxam dara du ko ci mën a gën a dëggu am keneen ku ne a ah, xool leen tànk yi xool leen sàll mi kii kay jaxaay la kii kay jaxaay la mu daal di woote ma baarak ma baarak wuyu mu ne tëye ko te tëye ko mu tëye ko 보는 해요 그 셰프 예 mindi chef bu ndax la woon booba Cheikh Madou Faat maa ngi koy jàngat te mën na lu bari ak Ablaye Ñaxit Jóob ñu di ko wax Ablaye Yàqin lañu leen woo dénk jàppandi na ak lu ko defal kër li tubaab tuddee kaafkat laa wax waaw ba baax rek lu baax ci moom mu ne ko loo ko tàmmul mu ne ko lu ñoree te nañ ko jox xol ba ndax xam nga nu koy lekkee mu ne Fall noo digle. Mhm. mu ne da ciy dëgg. Mhm. ma tag sàll wi. Mhm. mu daggee lu mu dagg te man ko woon na. bu jeexee mu sëggaat bu reggee bàyyi bu soxlaa dikkaat. jaxaay jat ne fa. ba ñëpp xam ko. Ablaye ñaxit dikk jox ko doomam maam yi Diop. boole ca ñaari baa. ak juróom-benn njëgamaar ni ko dee leen ko liggéeyal. Ismaayila Ka mu ne ko del yelwaan soo del di ko jox bu mu laaj sëñ bi dara sama man koo am soxna su tudd yaay tabara mu boole ko ca ne ko di digal ko ne yéen du ñuy dama ko jaamuloo Cheikh Ibra ne ne ma ne ne ma doon def dama doon liggéeyal Cheikh Ibra jox ko sama bopp ak lu ma yaakaar di déglu ndigalam loolu itam teewee naa ko fa ak leneen loo xam ne lii nit am na ko te xeddi ko te defar ko ba mu mat a xool bu deewu nag bu deewu fas bu dee gëléem lépp luy addiya loo xam ne nit daana ko defar ba mu amal ko njëriñ rek daana ko andil Cheikh Ibrahima du ñu commencé mu jàll lay jox sëriñam daanoon def kuy digle ragal yàlla daana def ko santaane jaamu yàlla daana def ko fonk nu liggéey mhm. daana santaane jébbuloo wéy ci ndigal mhm. daana tere mhm. ak jaxasoo daana tere tudd sa morom mu jaam fu mu nekku daana santaane toppante na ngeen ragal yàlla te jaamu ko na ngeen sax ci mooy te moytu tere da ko daa wax may dégg donc yow ku jébbalu mhm. tey ko yees mhm. mu dénkaana la ci daara mhm. fukk ñu mat mu seet ka fukkeel juróom-ñeent ña def ko jawriñ par fukka daan nekk daara fu ñu am sabes dénkaane man ñii ngeen di waxloo nag te addina di ma dégg denc naa ñetti jigéen ñoo xam ne ay jawriñ ma leen yoroon yoo xam ne kenn ku ca nekk bu ma waxee turam am na ci ñoo xam ne seen doom mm-hmm. am na ci ñu seen i maam mm-hmm. ndax mm-hmm. ci kër ga ay te bu ñooñu bu ñu naa mayal Cheikh Ibra may wattu si sama tool bàyyi ba sës ca daara ja dama daan ñëw ci mbooy yi ñu booyal di leen wàññil fas yi ñu jatam ak maam yi pour bañ ñu jàll ci lu ñu war a yàq-yàq ko su ngoon yi ma ñibbi bu subaa ma xëy si ah عندي خلنا خمنا نشرب له دير لا اشقر له ده خم من تبع شو خم ده خم هاي خم من من الرق هي فعل هي بهاي ما واحد يروح وقول شنو يرب شنو بيجي ما دي يروح يرب بيجي دك جاري baya من دك jabi ما ما دون ميجور شهرة رقية ميجور mi من دك واقي waqila ñu suul bàyyam marul roqee mhm. waqila ko sëñ Mor daal tabax mhm. armeel ba nga fa sëñ bu njaay nga guy texe mhm. Cheikh Ibrahima gi Touba ñaari magam ñu ngi biir Touba bokk ak sama maam bi jur sama ndey benn tabax waaw kee Birame Sele Fall la tudd bokk ak Cheikh Ibrahima benn baay kee tudd Madou Fatma Demba Kono di bàyyam mm-hmm. Demba Kono ak Madul mm-hmm. seen ñaari bàyyi bokk benn bàyyi mm-hmm. loolu la xam ci seew la ak gor la géer la ab jullit la ab muritu sëriñ Tuubaa la ndax nee na bu ñu dendalee murit ak taalube man taalu man damay jàpp murit ndax mu bëgg borom bu ñu ko doon pêché borom mu bëgg na diis ndax nit la mu bëgg ko ko ko wax mhm. taalube murit nga mhm. la murit bëgg ko ko ko mhm. waaye muritub taalube nga déggagu ko moo tax mu ne man muritu sëñ Bàmba laa am muritam laa <laughs> li aman na bu jëkk waa ji amoon tey nag kenn ku nekk ba ngaa am koy <laughs> waaye dootu ndax bu séddoo ak moom murit yi. Mm-hmm. Baye Fall ak Baye Mbacke rek la ñu xam ci qualité murit. Mm-hmm. sant wu ay mën a sant. Mm-hmm. boo nee murit nga dañ ne Baye Fall nga am lan nga. boo ne wul Baye Fall la ñu ne ko Baye Mbacke nga. boo santee Jaxate. sëñ Touba di sa sëriñ. nga sant loo Cheikh Ibra di sa sëriñ. ngay Baye Fall. nga sant Bousso. sëñ Touba di sëriñam. muy Mbacke Mbacke. ñoom ñëpp nag it. Cheikh Ibrahima wëlbatiku moom it sëñ Touba di sëriñam ñu bokk di murit mhm. di taalu bépp mhm. murit mhm. taalu bépp murit nag moo gën a wér muritu taalu bépp <laughs> ci waxin Cheikh Ibrahima loo tax mu ne man muritu ma gën a bañuma lee nag ndax ñay wax taalu bépp sañ Bamba laa waaye taalu bépp kii sàkku la ki jaar ci yoon mu jëm ci yàlla te bañ a dëpp nag yàlla daa xadee ma àjjana. jërëjëf Cheikh Ibrahima guddul ba ne sorox. gàttul ba ñu ne ànd ànd ma dëkk bi nit la. waaye bind ba. du xiiwam. ndax koñ gam mi am mii boo ko seetloo. mat na soixante-dix centimètres. su ci tegtal. ëpp na cinquante. te mbari làmba yi koo ci di nit cinquante ci yaxu mbagg bi yaxu mbagg bi di ci ëpp du bari. waaye Cheikh ëppale na loolu. yéen a ngi boo tey nii ci yéen nii. ci kaw rek nii. am lu war a feeñ ci kanam ndax sax. jëmmam daal. ragal nga ko xool. lépp. ndax defut bopp neen may xool kàngum boppam. daf daa kaala woon naka jekk. kaala gu gën a bëgg palmaan. palmaan waaw. kon palmaan la doon solo lu ci moom la gën a bëgg kaar ak palmaan. mbubbum palmaan. daana ko gën a bëgg. daana def kuy digle ragal yàlla ak jaxasoo. kenn mësut a ñemee jàll ci kër jigéen. ba muy dund. mu ñëw wala nga wuyoo fa. tey. du genn góor bu ko mës a ñeme. daana digle jigéen ñi. daana digle dem tool daana digle liggéey daana digle ragal yàlla daana ko digle dawul tere koy jàng lépp lu xeeti jàmmu yàlla kenn du kenn Cheikh Ibrahima ba ko lépp tax rek la ne def ko waaw Cheikh ni mu nettali ba mu jógee Mbàkke Kajoor ba mu jëmee Mbàkke Kajoor te jógewu ca da caa jëm bis ba muy dem Cheikh Adama Gueye la àndal ndax fekk na sëriñ bi bindub lettre yónnee ci sëñ Bamba Sylla Cheikh Ibra tàngantiku fa fekk ma nga ci sëñ Bamba Sylla booba ndax Bamba jëmu tudd ak cax boo mu at na tama nag Sëriñ Tuuba ba mu ko nee jalla sam jalla mu nettali Ibra Faal dale jël ca keef ga nu wutante ma dale ji ca baaba nu wutante Cheikh Ibra nekk mu kàllaf xam ne dig ba jot na mu di ko wut defe ne ci mbëri làmb yi day am doole ba ku mu far sànni la nga dammatoo te koo gis ci ñuy bëri te koo gis ci ñi ñuy soow ci dayo ba dem ci sëñ ba ma lay ba fekk ko faatu muy wër armeel ba leer ga defut kuttumal rek mënta mënu mënu caajil lu mu xam ba bis. magam. ñu ñoo xam du Fatma. ki jur sama ndey. ne ko yàpp sama wuyu kon mu ne ko tey bi nga amee dam sa ji nga dëkkee boo ko gisee. dig ba sotti. bu doon nag ñor na. soxla na man soxla naa ko ji nga dëkkee. boo ko gisee loo koy doyee. mu ne ko dama bëgg ubbi ji buntu ba jana rek. ñu ne ko dangaa bëgg a delloo di ci ndof <laughs> la taxat ñepp ñu bari tudd ko ndof ajjana dafi néeg ba nga di ko ubbi mu ne ko koy dàq jaar ba mu tàbbi ci pax suñ la nee li nga doon dàq looy wax tàbbi na ca pax ma kenn du tàbbi ci lu amut bunt booy root ba sa baag tàbbi looy wax mm-hmm. baag ba daa tàbbi bu teen amul bunt baag du ca tàbbi bu ñu lay ñaanal boo dundee boo dee loo gën a bëgg yal na nga dund ba boo dee tàbbi ajjana la ñuy wax ñuy wax de wallaay kon moom daa am caabi ci ko us ca war a duggee mu ne ko caabi jëlaa bëgg xam mu ne ko ku a dugg da ngay xàcceeg iblis ja dégg bi oh. topp ci kolo doy jox ko sa bakkan di wéy ci ndigalam di bàyyi ak tereem mhm. jébbulu mhm. mu ne ko luy jébbulu mu ne ko jébbal sa bakkan ki la doy mhm. def ko seere sa diggante ak sa borom mu ne ko teg naa am nañ koy defee mu ne ko bu ma ko aree defee ba noppi su ma ca jógee dikk nettali la no ma koy defee mu ne nettali ma boo ko gisee nu koy defee mu ne ko su ko gisee dootuma siggi xool ko damay lem sar ne ko bi ma lee wut ba gisal dama laa bëgg a jébal sama bakkan ak jàng àllaaxira daf la seere mhm. sama diggante sama diggante ak sama borom mhm. di déglu sa ndigal di wattu say tere mhm. lu ma digal ma def ko lu ma tere ma ba ko mun a ko yëgal suuf ma def ko ci yow magam mu yegg suuf mën ta mën ta bañ ndax bu bañee mën a ko waxee dof nga mën a wax du tax nangu woo xam ne des na jëm marché kay yóbbante xam ne marché nga jëm mu ne la jëndaale ma nangam mu di ko yóbbante njébbalam daa di yàgg suuf ne ko jox naa la sama bakkan def naa la seere sama diggante ak sama boroom jébbal naa la sama bakkan àdduna ak àllaaxira loo ma digal ma def mhm. te looy tere duma ko def mhm. Mhm. mu ne ko danga maa bëgg ndax Ahmadu waaye faam naa sa bakkan ak sa bakkan dénk ki may wuti te gisaguma ko torkal <laughs> mu ne ko nag wuti boo jógee fooy jëm mu ne ko bi wax ak yow شما نو شاني كنا لا من لا شك واحد ساجي كنا شام خل ديلو سينا من نفع تلو كنا لما مجا واحد مم بش بو ما يكش أبصرين لا نما يتك بوي يعمله سن بام هلا نما يوخ نقدر هلا جيت أكيفك أنت هذا نوتك أنت الله أكبر تبارك الله هناك واو كيف أكبا loolu wiccax la wala lan la aw kasak la am lan la mu ne koo xam ne koo xam naa ko moom mi koo xam ne koo xam naa ko mu ne ko sëñ bamba de moom feeñ lengal ndax bamba sil bamba leeba sëñ tay ba sil sëñ tay ba xay tay ba kaloom lépp ay bamba la te dañuy jàngale di jàng mu dikk ci sëñ Bamba si laaj kër ga ñu wan ko ko mu ne ko noo sant mu ne ko Sylla ñoo tudd mu ne ko sëñ Bamba la ñu wax ne Bamba mu ne ko noo yore sa diine mu ne ko jàng alxuraan jàngale weer weeru koor nat asaka su mu amee lu mat ke def ko benn juróomi ponk yi mu ne ko wax nuru na baax nuru diine waaye daal daa bëgg boole sa sama bakkan jébbal la ko di jëfa di la jëfal mm-hmm. ba am sa ngërëm mu ko mënu ma ko sañu ma ko mën ne ko mënu ma a ba ndax tur bi ak mm-hmm. mécce mi mm-hmm. mu demee gor garab bu daanoo mu for carrière yëkkati daal te ba yenu dikk daane ci gannaaw kër ga bu demee ci àll ba saa yu gattax saa yu xa saa yu xeer saa yu ba mu mel ne ay sàq yu tëdd ci gannaaw kër ga sëriñ ba ñu dàkkatal ci Touré. Mhm. te mu àndoon ak Cheikh Adama Gueye nàmp bataaxel di ko wër. sëñ Maxtaar Touré. sëñ Maxtaar Touré. Mhm. Cheikh Adama moom jëkk dikk ci sëñ Bamba Sylla. dégg mhm. fa gan. bu kéemaane. ku dul jëf-jëfi nit. Cheikh Ibrahima jógee ca àll ba. xet nga xeeñ ko. mu banamti ko. dikk xet ga nekk ca façon mu dem su ko façon neex te ndox mu jëlee ma Cheikh Ama wëgg façon defar ñaar ba Cheikh Adama toog ba yàgg bu dikk xool façon seen mu ne téema dikk bi sans façon yi dal na ñu ne ko ndax lan mu ne dañ koo buub ba mu mel ne am ruum yooyeen ci Cheikh Ama raw ko yooyeen di ko jëmee ba Cheikh Ama war a jëm ñu ne ko gan gi fi nekk de luy jëf jëfi di demal ci gannaaw kër gi li fi tëdd mel ne sàq yu daanu mhm. moo ko fi indi mu dikk fekk mu sukk fa fas fa mhm. ni ko noo tudd mu ne ko ah, am naa tur wu ñu war a yëkkati waaye ki mu ko war a tuddi dañoo gisewut oh. soxna si nag daana moo yeb sa xànc mhm. càmmeñ yi naa ko yebaax ba sa xànc mu takk tamat ay càmmeñam ñoom moo indi tur woowu moo ne ko yow mii mhm. day sunu kaas moom a jógee bu ngeen gisee woon da ngeen jóg ndax moom it daa dëkkee wax gisaguma jàmbaar. Mhm. fu may gisee jàmbaar gisaguma jàmbaar. mu xam ne moom itam gis na jàmbaar. Mhm. mu nu ànd ak moom la ko. ci ëllëg sa moo am tontu. ne ko boo ma toppoon mu woon la sunu kaam ma. soxla na ko doome na yow. def ko bi yaa di ko bëggan koo nëbb. mu sant ko sëñ bi yàkkamti ñuy gisee di ko séenu ca ca mbedd ya ca tokkër ya maam Cheikh nee ba nu jubee Mbàkke Kajoor ma yaa ndaxtal Adama Gueye ñu jiitu ma joxe leetaru bataaxel ba mu jële ci sëñ Bamba Sylla ma tendee far mu jiitu ma joxe bataaxel ba sëñ bi ni ko demal fere fere ye nekk ma gàttandu ma ma jub ko yegg soo raam mu gàttandu ma tàllal ma loxo ma jox ko sigi yokk ko loxo mu yëkkati ma taxaw man ne ma yiw dafa noonu feeñal ma ne ma ne ko dafa ma ne ko dimbali li bi ne fi nangu mu leen ba ñu dem sawara allahu akbar mu bàyyi ma foofee dem ca dongo ya ne ne ne as ndongo demal ca seen soosee mu ànd ak moom yegg si nee ma topp ci moom Cheikh Adama ne ko du dóore de ndax nee na booba maa ngi wat sama usimiñ wutal ko marum sagar bi ma koy lëggéeyale maa ngi wut jaas yi wutal ko marum sagar maa ngi yett maa ngi defar pëgg teg teeñ boo xam ne daa def bën bën ca digg ba boo yanoo sa bopp di fiix oh. oh. lépp ma yor ko fekk sëriñ bi wut bu di ko népp mm-hmm. ci rajo laay waxee waa daru ko do simiñ yu muy mm-hmm. fene mm-hmm. ba Cheikh Ibra doon gàttal eh, indi bët naqar ba mbaxaan jaman gaal ga xeejub kàppara mm-hmm. defe na ay bari fay tale ne ca biir mm-hmm. waxande wa mm-hmm. ma nga fa këll ba nag bañoon naa këllub Cheikh Ibra boo bay këll sa bay ay ca defan muuraake yóbbu ko njaarim joxe ñu delloo si ko daaray bax daal jox ko jëwriñ ja tudd moor beey Fadi Njaay soxna am maa ko mujje donc ma ko jéggi li may wax. waaw loolu de wóor la. daal li mu jikko wóor mooy ragal yàlla di ko topp. Mhm. Cheikh Ibrahima li mu jikko wóor mooy yëbbulu di joxe addiya. Mhm. yor sa njaboot yar sa njaboot. Mhm. yor sa njaboot yar sa njaboot. ku ma ta joxe daara mu joxe daara. ku ma ta joxe jàng mu joxe jàng. ku ma tal liggéey loo mu jox la ku lay liggéey loo ku la yar kuy jigéen mu jox la njabootu Sëriñ Tuubaa ñu yar la fa yaru lislaam soo matee maye mu boole la ku Sëriñ Tuubaa jur baa ku mu yar mu wutal la ku ñu def féete leen doomi Sëriñ Tuubaa sëñ am laat anga bota mangi cikar bai fadi do ken do nyaara sen joni bo nonu ko yam bai fadi yow da nga dem tadu de waye mbake mbake amut roy jaam ju jigen amut ju ñoy ragal dana nan amut dangat jaan ju ramat nga jiidum ndënd mbaa nga mocc mbaa nga yaakaar ndee murid cheikh ibra fall la an gis ku jaan man su nga këdd saaga jaan njanday ko si xaw koog man si <laughs> jaan nga wàcc nga dem liggéey dégguma dama ko fekke mm-hmm. waaw wér na euh, Baye Abdou mm-hmm. comme ni ko sëñ Aliou waxee mm-hmm. dafa am solo ci jotaay bi ñu namm ci bés bu yàlla sàkk nag ñu ciy indi ay képp koo xam ne yaa ngi dégg émission bi te bu Cheikh Ibrahima amoon toolu ba àllarba bu àllarba jotee. Mhm. nañu daan defal sëñ Fadou Mbam mi loolu. Mhm. nga war émission bi nga respecté ko. Mhm. te fu laal ko te fonk ko. tey fu Baye Fall ne. li ab taawam daan wax nga dëkk fa di Baye Fall. sëriñu Baye Fall lu mu fa santaane demal ne ca. nit ñi nag am na ci ñooñ kër Baye Fall bu nuyoo daje fa am nit ñu dem cëb sëriñam ne ko sa taalibe bi gis naa ko ci sëriñ sàngam boo demee daa xàcc bëgg a jébbalu loolu la nit ñi xewal bi waaye lépp day wér ndax ku fi jógee sa politique toj daañu xam koo daa jox addiye ah te it ku dem fa yàlla. la fa dawal lan rek la fay fekk. Mm-hmm. ak murit du kalan. Mm-hmm. ak murit du parti. Mm-hmm. ak murit du kompaloo. ak murit mooy gëm tey jëf. lu baax te di ko wax. loolu rek kat moom ba muy joxe boppam. sëñ bi di ko ne loo bëgg wax ko ma day ko ñu dégg mu ne ko ku ma yàggale ci yàlla ak lu maju mu ne ko kooku gudd di di yàlla bu doon nit ku koy xañ ba gis ko du ma sore moom. mu ne ko koo kii mu tudd di yàlla moom mooy jox bati xol ma di ko xëy ba mu socc yow. <laughs> est-ce que. mu ne ko ana sa téere ak sa alluwa mu ko am naa lu ma àndaat lu dul alluwa du téere. Mhm. te bëggub sëriñ. mu mhm. ne ko nu su di wuteb ba gis ku ñu teg sëriñum jàngale mhm. fekk ña muy jàngal yor alluwa yoru téere nga bëggub sëriñ te yoroo alluwa yoru téere te bëgg te bëggub sëriñ mhm. mu ne ko dafa am lu ma yor lu alluwa dub téere te bëggub sëriñ mu ne wax ko ma dégg ko ñu dégg ko mu ne ko sama nopp bi loo ma digal ma dégg sama bët bi loo ma won ma gis ma sant ma jëf ci samay cër jëfal la ko ci samay cër mhm. Ah. fekk sëñ bi denc na jaasi di ko ne akusi mi ñu ko bu ca biir génne ko ne ko tàllalal say loxo mu tàllal mu ñaanal ko yëkkati simiñ ba ak jaasi da teg ci loxoom Cheikh Ibra boole ko ak simiñu boppam ak jaasiyam yëkkati ne tekk di ko déglu sëñ bi ne ko loo fi jëlee loo fi jële wut ci yow la <laughs> fa yem nu yem fa Cheikh Ibrahima ne lu ma fi jëleegul dafay amul. daal di jëkkal xëy ca àll. lu ma fi jëleegul dafay amul. Mhm. di liggéey. Mhm. man mii di wax ak yéen nag dama leen di wax wax jooj kenn gone na na dawalum xelam làmb mos toj te bëri amul. Mhm. làmb ja la ko tas. ku laaj xam ko. mbaa ko déglu mbaa ko war a gëm-gëm wet dina musu fee jóg ca yant bi la tàmbalee dëgg tigi sëti ñu ko daan def ba tey ñu ngi fi lu ma sa baax lu ne am na ko naan du noonu waaye nag yaara am defe ne na la te duna defe ne duna te mu dina tarkal dama ne yaara am defe ne na la te duna defe ne duna te mu dina Cheikh Ibrahima moom la mu tuut ka mu topp na tam le mul kamu top gama di wuko wolu na ko te wolu na ko jox jafam wolu na deglu ndigalam ëllëg lu mu am jël képp koy xebet Cheikh Ibrahima nag dikk yàmm di ko wuta xebet ak a xem bi nañ ilin xalaatal sa bopp sa diggante ak sa borom ba nga la mel sa kanam daj tawar ak fa ngay waxe ba xam mas ngaa jéggi jéggi ka tax bu doy xalaat sa digganteeg bar sàqam de. <laughs> la ilaha illallah sëy waaw waaw. jërëjëf eh. moom mu xebatul kenn. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mu waxatul kenn. kontorul gëm na ki mu gëm gëm mu doole. wax na ak i taalibe nu ngeen di ci gëm. dina ko loo nu digal nu def ko. loo nu tere nu bàkko mbaa loo tere du nu ko def. mu ne loo gëm te mu dëggu gëm ca boo ca xap xapalee gis ca looy ragal. <laughs> tarka la. nag. ku yàtt yàtt mbaa nga yox yoxe nag. Mm-hmm. tadib bàyyi faal. Mm-hmm. ndax ñu lay soob ak sërxal. Mm-hmm. da ngaa te gëmm ca la nga gëm. waaw sëñ Fallou Fall. moo jëkk a ministère Serigne Touba. dénk ak pont. moo di taw. moi tawa à? ừ. yiri mai ni wa da mo jur ne yiri mai ni wa da mo jur san wa da jur to da wa da jur maro an jur ban wa da ban wa da da ya ya ablai fa an da ablai fa an da la ko ba ya mor mor wa da tudde mor to la ko jur tax ñu na ko mor to la yiri mai ni wa da ɓaŋo gaaño tadi ceɗɗo te artago ceɗɗo sëñ Fallou dem ci géej gi des ca soxna sama bàyyi Ablaye Fall nar takk door na ko takk ko muy doomi bàyyam ñu bokkal ndaat bi bàyyi ah mu tudd Bintu Sow ñu jox ko rakki sëñ fan mhm. mu taaw loo ca doom bu góor tuddee ko Cheikh Ibra mu mhm. toll ci dana jàng faatu mhm. ñu denc ko sëgi ceem mu di ko méttit lu Cheikh Ibra dëkk ndànd Moodu Moustapha taawam ba fàllu euh, dikkulee dem ci bàyyam ne ko fàllu woo ko waxtaan ak moom doomam la tuddee woon dafa gaañu mu di ko métti mu ne xanaa bëti xolam yamul ak xoole baatin mhm. dafa waat ne ñi ko denc mhm. bi ñu jëm see ci kër ñu tànk ndox gàtta du leen bëgg ñu roxal soog a dugg mhm. bi ñu daataa yegg si doom ji jóg na fa ñu ko suul dem dugg biir sawara te la ku bu dikkee tub sawaram maamam joojee ñu ji lim mbañ <laughs> samp ko àjjana te ñu ko suuli woon yegg siwut ko am yooyu doom mu jiitu la foo mënta manqué wallaay wallaay nga di ko xool di ko gis <laughs> la Cheikh Bintu mm. tabarkalla ñu ngi koy ziar bu baax sañ Cheikh Bintu Fall taw roqee fa taw roqee Fall taw Cheikh sama maam jandaan la mu toppi ko ah. yóbbaale ko nar moo a ko wax soxna sax ma ko wax eh, mhm. ah, moo ma ne maa yóbbaale woon sa ndey ba may dem kër sama tabax bii ñu ma tabaxal pantare bi féete tenku mhm. aj awa géey mhm. ab taawam mu woo mu ñëw mun a ko jox ko caabi néeg bi féete banda war sa nijaay Ablaye Fall nar mu ci mi amoon bii moom moom caabi bi waa kër Adja Awa maa ngi ciy bu baax a baax sax ku mel ni Mamadou Ndoye Diagne ñëw fi léegi ci jotaay bi moom itam mbokkum Adja Awa Guèye la macha allah maa leen di gërëm <laughs> mm-hmm. maa ngi leen di sant mm-hmm. maa ngi leen di kañ mm-hmm. képp ku maa ngi lay leneen maa ngi lay ñaanal la nga yaakaar ca yàlla yàlla mu mu tax mhm. nit ñëpp ku bëgg yàlla ko ne mhm. yàlla nga daje nga demal yàlla ñëpp laa ñaanal mhm. ndax ñaar ñu bokk maam bul ñaanal kee mucc mbaa te ka ca des ay fabi séram ne ko solo li wutoo booy ñaan rek ñaanal la ñëpp <laughs> ñaar ñu bokk laay baay bokk ko daa rootal moo ko ne bàyyil sëgg ba sëgg ba yàggal suuf bale mhm. taxaw di ak yenoog sotti góor a ko dàq jigéen oh. Oh. dama fukki waxambaane mhm. dégg yëngu bi di sëñ bi xam mhm. amuñu xam-xam mën a jàll ba joxe seen bopp ñu ne ñu ne sëñ genre kaamil bi ci bitti dikkal taxawu ko te jox na root mi soxna si yàgg suuf di bale looy root laajte seen isa isa dem ba ci sëñ bi ne ko dama bëgg a rafet xelam nekk ci def Cheikh Ibra mu ne ko demal waxtaan ak Ibra Faal def ko ndayi daara def ko baayu daara allahu akbar waxat na ko sëñ mën nu lay ba muy joxe boppam ca Mbàkke Kajoor moo ko ne demal wax ak Ibra Faal joxe sa bopp nu fi koy defee مع مشيخة وخلون wanda san tu wai mana san tu da to pice sai ba ma kar gura kar go mana mun wala giya boy dugu sai kar ga di shon man a jawla sai ya oh Allah akbar kan lulle ni ay wax muñ le ëlëk du fam am na sax lu ma la bëgg laaj foofu tuuti dafa mel ne mas na maa dégg nga wax ne Baye Malick Ndiaye mas na am lu muy wax ci njaarim nga dégg ko ci sa nopp Malick Ndiaye kay daa waroo a jam ñu dab ko daa fa tàngam ñu dab ko jox ko wajan ne ko waral ci kii mu war a mu ko ñaa ki no yaakaar laf gan déggal boo demee wax dëkk la nga dégg mu xam dëkk déggal nettali ña nga dendal ki nu yaakaar lëf ci jënne mhm. nee na yëpp rek xaaral ñooñu ku leen di nga safaan bay ñaar na. Oh. allahu akbar. ba hmm. takkusaan jeex mu ñibbi. naar ba noddal sëñ bi. ñu mhm. julli timis. Mhm. mu julli ba nu geesu mbooloo ba ndax Marie Ndiaye yegg si na. ñu ne ko mi ngi ci mbooloo mu ne nettali li nga doon wax noo ko doon waxe oh. mu jaar foofu yi ma jaar. te nu yaakaar noonu la fi ci jënne gan déggal boo demee wax dëkk dëkk déggal wax ña nga den lan mhm. ki nu yaakaar mhm. noonu la fi ci jënne nee na Ibra Faal ak ña ñoom ku leen di nga safaan bay ñeel na la Allahu akbar du tudd sawara ndax bu ko noonu sawara mu sedd mhm. Ah, waaw waaw fukki doom ak ñaari na ko ñëpp dégg jàpp ko daana ci waxtaan nhất nhất nhất tôi tôi tôi mới bắt cho người mica rồi niente c'è to sestia niente to parte mo giuro niente niente fete so mo dale c'è cau niente io non muto de ko jam mm-hmm. ya c'è cau mo dale c'è to mo buja ko ne đi borom mm-hmm. di alla là đi gần def ko mm-hmm. lu mo la tere ban ko c'è nhà elba nhất là lu mo dogal na neex niente ye jeex bokkum la xarab sestia mo tamari c'è to mo buja ko na ngeen bokk pexe na ngeen bokk yéene na ngeen bokk na ngeen nhất niente ye jeex mokom taalibe topp ca mu ne soppante leen woloonte leen dimbalente leen muy juróom ñeent ñett feete suuf mu ne mbokkum dëkkaale bokku leen pexe bokku leen yéene bokku leen lu dul dëkk rekk leen boole mu ne na bu ko bañ dëkkaleen boole bu ko xeeb dëkkaleen boole bu ko yàpp loolu la waxan bu ko mas a wax ci suuf rëdd suuf sa donc it toon suuf sa dafay cawri alhamdulilah xool nag moom ku ne mën na ko. gannaaw néew bu ñëw doo xool. kilifa gi moom jëmeetu ko ne jàkka di xool. waaye mag ñi. am na ñooñ daana ñu toog fi moom. muy waxtaan ñuy déglu. te booba nettali yokk. te nettali sëñ bu mag bi kenn ñemewu ko. mës naa yónnee suukar it ñu nettali. ndaw la dem ñu jafeel ko. mu del ci andiwut mu ne ko ana la ma la yónni woon. mu ne ko daa dem fa mu ko daan amee mu yokk mënu ko ñàkk mu dab ko mhm. la mu ko daan sànke mën a du ko ca mu yokk li mu ko daan jaaye mhm. mu ne ko lu mu la wax mu wax ak njëg mhm. mu jox ko lu toll noonu mu dox tuuti mu ne ki ma yónni woon nañu ko dam ñu dab ko mu bëgg a siisu defe na dañ koy yànkamtu ñu ne foog nga dëpp ndax sëñ bi ne bul yàgg dëppal mu dëpp dikk sëñ bi dindi xaalis di ko dolli mu bëgg a wax mhm. sëñ bi ne ko amalug daal mhm. ndax xam ngeen lu ma leen bëgg a mhm. xam ngeen lu ma leen bëgg a defal mag ñi ne sunu jàmm dong lay doon mbàkke mu ne fa ngeen daa roote di fa fekk ndoxum teen ba goj ba yam fa dootu leen dem ba ca teen ba fekk ko ci dëy ngeen di dellu kër ga di abig jokk lu ñu jaayee ci am murit day wax dee lool na waaye lu ne dem ci kër gi wuti xaalis Cheikh Ibra nee na pajuk aajo sëñ Bamba moo ko def ci jaam ñi waaye bokk naa ca ndax fa sama borom na nekkal nangu faa jóg mm-hmm. ba ma sama borom ne àndal ak kii wane li ma ko mm-hmm. ma xool ko mm-hmm. sama ya fi yagan na ji ji bulu ndu ma ko netta ni mala chambo romo ne sama ya fa chine mana ko tang ma ko ba ha mana pa jok ajo mana ko dang ma ya bal ma kine dem ne le ke ye lima sunu ko yo ba le da na no ja pa dan ajam la ne da je ni nit ham ak xam xam te gatt fan te gatt kawar ham ham xam ko fa ci ajo mbokam dina toppe tankam may no ndigal nu yo ba le ko ne chambre am dama ko mënta dindi rëy ci moom mhm. doo mën a faj aajoom ma ne ko danaa ko mën ma ah, mhm. ne ma wax ko sëñ Ba ma mu ne ma ah chambre lu wax da koy bind te du bind far te àddina du fu ñuy baagante <laughs> mhm. ah, ne ma ne ko man a wax na ñu dindee rëy ci góor mu ne ma wax ko nu soog a ma ne ko gor su la jox boppam. wëcce mhm. ay bokkam. Mhm. ndax nag moom di dem. Mhm. tuuti ngeen di dox ñu joxoñ ko ne bu toroxee ñibbisi. nit ne yow topp ko nit mënalul morom ma dara. waaye boo fajee aajoom bu ñibbisee ñu toppi tànkam. ma ne ko. gor su la jox boppam day seet ba xam dëggu naam dëgguul da koy xiifal yan koy yalwaan na ko. safaan ko. bu gëjul nel dem ba la fa rek baakaaram yàlla nga defar ko. allahu akbar alhamdulilah. jërëjëf loolu am na solo amiin yal na ko yàlla tas. ci dongo yi. foofu doog ne. ca bitim réew tey wut. Mm-hmm. yàlla na am te ñibbi si. amiin ñuy seetaan mën naa tàllal kon. Mm-hmm. bokk ci ñaan bi ma ne mboolem ko ñuy seetaan mën naa tàllal bokk rek mm-hmm. ku ne bitim réew la ngay dàq yàlla na ko jàpp. amiin te jëriñoo ko. ku ne ci réew mi li nga fi yàlla. yal na shakke bar kel bangam an chedi bli ni bo ga gen ti gen amin bar ke mam ni ji hospital yi yar na nyu ke nu yu ga de du shi yor shi nu ya bo ni ga kham na dang le na te mm. ci pe kham sa eta ne mm. yal na yal sant kholi ni le fit na ti te le mm. ni et er bu ci yalla kham ken mun ku dul yalla ba le te kham na ko ne bu nga yalla ba amin kon ku ne war naa baal sa mbokkum tàllu mm-hmm. baal sa mbokkum jullit baal sa mbokkum nit ne yow mm-hmm. yal na yàlla tuur xéewal ak jàmm ak juboo ci réew ak bitim réew fu ay ne tey naa yoo yal na nga jubal te juboo ngi ñu naa yoo